man kon mosañu way ñibbi def lu baax sëriñ Ousmane di jiital si niyo bi bay sëriñ Keneba bay sëriñ Xasan Seck di ko ñaanal yal na yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi di nuyu bu baax imaamu ratib sëriñ Seexu Amadou Seck di nuyu chef de village sëriñ Alassane ñaana Seck bu ko defee ñu yóbbaale waa Ceneba yëpp euh, di nuyu nag mu xàdd mu seexu Ceneba yi nga xamante ne bi ñoo nekk fii ci Dakar ci cap di nuyu taalibe yi di nuyu ñëpp rek bàyyiwuñu kenn di nuyu daayira yi eh, nuyoo sering dañ koy jël rek neke ko ci loxo eh, sëriñ imam ratib fii ci Parcelles Cambérène eh, imam baytaala Diop moom la ñuy seet si tey bi, TV sol daal la ñëw seeti ko bu ñu ci jamono bii bu ngeen gisee image yi bala ñuy dugg ci lan mooy suñu tànk rek ñu bëree di xel yépp dinañ dem ci Ousmane Seck nga xamante ni bi xamoon nañ ko ci wetam xamoon nañ digganteem ak Serigne Ousmane xamoon nañ ni ñu taxoo ñoom ñaar bu ñu dëgmalee gàmmu dinañ fi ñëw mu gën ñu xamaleeg jëmma jooju nga xamante ni bi yaakaar naa ni lu ñu mën a xam ci moom doyul bu ko defee rek moom lañ seet si waat mu jéem ñu euh, nandalaat ci borom alxuraan Serigne Ousmane Seck euh, di wëyjuut si Serigne Mouhamadou Mouxtada ak ñu ko bokkal ñëpp di amee fële ci Mbour carte santé su daaru Ceneba euh, bu ko defee rek duñu guddal euh, loolu mooy jotaayu tay bi am na ñu fas yéene yëkkati kàddu waaye balaay boobu dañuy jël micro bi rek jébbal ko suñu jot euh, bay taala diop imam euh, bu ko defee rek moom moo ñuy wax ana naka la bëgg programme bi doxee ak kan moo war a yëkkati kàddu su paree kan moo si topp su paree kan moo si topp bu ko defee yéen ñëpp ñun ñëpp ñu bokk xam ni ñu ngi ci préparation 44e édition gamuk Serigne Ousmane Seck war a am fële ca Mbour samedi le 9 décembre 2023 micro bi dañ koy jël jébbal ko suñu wayjur bay Talla Diop imam raati fi ci Cambérène Pass bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina wa nabiyina muhammad almabxuus rahmatan lil alamin على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن شيخنا وسيدنا بالأصباد أحمد بن أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن جدنا شيخ المجاهد مام أحمد اللاكسك رضي الله عنه ورحمه وجميع عترتي ويالي mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah nital Euh, ñu ngi ci jiital Serigne Assane Seck xalifa di Thiénaba ak mboolem ak njabootam gi mu jaboote yëpp waaye fii ci Cambérène ñuy jiital xalifa seneral Layène euh, yàlla na yàlla dëgëral ko te wattu ko ak mboolem lu maam imaamu jaboote euh, tabaarakallaa di nuyu islam bi yépp bu delloo ci ba nuyu imam ratiba Serigne Cheikh Amadou Seck yal na yàlla dëgëral ko te wattu ko di nuyu chef de village euh, Serigne Alassane Seck ibnu Cheikh Ibrahima Seck yal na yàlla wattu ko te dëgëral ak càmmeefam di nuyu mboolem muqaddam yëpp waaye di nuyu waa Mbuur gépp ndax Mbuur Euh, dëkkub sëñ sman la euh, dëkkub sëñ la mu bëgg mbuur lool waaye waa mbuur bëgg ko ñu ànd ñoom ànd moom àndaay bu yàgg kon maa ngi nuyu bokki mbuur yëpp moo xaddam yaag taalibe waaye nag du nuyu nag bokk yi ma dendal fii ci jataay bi euh, ki nekk sama loxol càmmoñ ñu ngi tudd Alaaji Cheikh Omar Fouti Ba jumaa ji nuy jiite ci parcelle unité 5 mooy sama première naayib kon moom itam ñu ngi koy nuyu di leen ko présenté ki sama loxol nijoor joor alaaji biraan kenn ku ne xam na diggante alaaji biraan wayal ak canaba ak tiwaawoon moom dafa am cër bu mag ca tiwaawoon bu mu doon ne ci woy juróom waaye amaat cër bu tol noonu ci canaba canaba dafay séddale waaye kenn du ko sédd loolu xam nañ ko euh, ki sa loxol ni ostaas Ah, Malick Ndaw di sunu kóllëre di borom xam-xam bu mag yàlla baax ko muy sunu soppee mu nga dëkk ba Grand Médine waaye àdduma àjjuma ju jot day romb ay jumaa yu bëree baree baree bëri xool sama ànd ak ala cheikhu mi mu rafetlu ko lool ci biir ak ci biti fii lay jullee ka ca topp di alaaji Mor Fall moom itam di notable ci jumaa ji ñu jiite bokk ci kilifa ya bu dee ci njaw ki alaaji Goro Diop moom di mbokk Eh, eh, di mbokk sëñ ji bi itam waaye nag di suñu wala di suñu xarit gu yàgg lool moo door ak si nii bu dee njaboot gi eh, Modou Moustapha Diop Mohamed Bachir mooy magam dafa nekk ci biir xam naa yaramam dafa xaw a moo tax mu ne ci biir Euh, tubaarakàlla moom itam mu miin na Mbour waaw Mbour miin nañ ko ki ci topp di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane euh, moom itam sama doom euh, ab jàngalekat la ki ci topp El Hadj Mayib Diop moom sama doom tubaarakàlla bu dee ci wàllu soxna yi Adja jenn ma nga ne toog tubaarakàlla xam na mbuur Mbour xam na ko soxna Awa Sall ma nga nile moom itam ci njaboot gi di sama soxna ñu ci des di ay doom soxna Astou Ball mii ma jàkkaar lool moom laa tudde soxna Astu Balla Diop booy juru sëñ Ousmane ah tabaarakaala soxna Naar Wayal moom itam mi ngi di sunu wëllër di soxna si Alaaji Biraan ah, tabaarakaala ah, ah, Ndey Bint Diop ma tudde ko sama yaay mi ngi ni toog njaboot gi daal ñu ngi ni toog tabaarakaala ak soxna Ndey Faatu Badiane soxna Moustapha la ñi ci des dañoo nekk ci liggéey léegi nag dama bëgg <coughs> ginnaaw nga xam ne si yàlla dem ne sëñ Ousmane sëñ Ousmane ñëpp la sëñ Ousmane sëñ Ousmane um diine ji la sëñ Ousmane sëñ Ousmane um islam bi la sëriñ Ousmane sëriñ euh, Ousmane um bokk yëpp la sëñ Ousmane euh, sëñ borom xam-xam ku ko xam-xam ni nitu alxuraan la nitu sunna la waaye nit ku dëggu la ku xullawoo ci moom la ñu bëgg a waxtaane waaye damaa bëgg na ginnaaw sëñ Ousmane ni ma ci amee cër ba yaakaar naa ne comme ni ko sëñ Maar waxee ci waxtaan wi ku xam sañu maan xam-xam bu yàgg tuuti xam nga ma ak moom gone yu ndaw yi dooru a mujj sax ku ci dëgër lool xam nga ma ak moom kon tabaarakàllaa euh, waaye maa ngi fàtte ci nuyoo bi sëñ maam Mortara Seck ndax bu ma nee waa Mbour rek moom moo fa toogal sëñ sumaan te yàqul ca jataay ba dara maa ngi wax ni euh, gàmm gi su gàmm gi su gàmm su gi soo ñëwee ci gàmm gi na mu daan toll daf ko ëpp waaye wàññeekuwul soo ñëwee ci gàmm gi su ne xamone seigne Ousmane nekatul jamono da ngay den seigne Ousmane dafa ñëwagul rek lool nak taxaway mam moo taal la yalla na yalla samal nuko ak rakam ak ak magam moy soxna astubal job ak rakam suma tuddé ken rek tudd ñep ndax bëgguma di lim kon sëñ mam mortal taal la ñu ngi rafetlu ab taxawayam ñi nga rafetlu wuutu gu mu wuutu baayam na bayam waye mat nako seuk ci ni mu and ak talibi ni mu and ak njabootu si Ousmane ni mu ànd ak mboolem ku doon wëllëree baayam nga xam ne si xamal na cër bi mu ànd ak baayam sëñ euh, maam Mortala daa jox cër boobu ba mu mat ba boo toppee sax tabaarakàlla kon kon maam Mortala ñu ngi koy ñaan bu baax yàlla na yàlla guddal aw fanam ak mboolem ñu bokkal sëñ Sumaan bu ko defee nag damaa bëggoon kàddu gi balaa may dugaat ci waxtaanu suñu maan jox Alaaji Biraan euh, mu jox ci ay témoin ci sëñ euh, ci sëñ Ousmane ndax xamante woon nañu wala réem lañu kii itam nitu xam-xam la sëñ Cheikh Omar moom mu def ci témoin ba pare jox sëñ Ndaw mu def ci témoin sëñ Mor Fall ci témoin sëñ Góor moom itam mu def ci témoin bu ko defee nag door jox Moustapha ak euh, Cheikh Ahmad Tidiane euh, may moom nee na kaddu Cheikh mooy kaddoom bu ko defee ñu jox seen yaay boro suñu àggalee nag ma door a jëlaat kaddu gi sara si lu ma ci sara kon mën naa jox kaddu gi léegi Alaaji bismillah bokki réew mi bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu leen siyaar di leen balu àq te leen balu àq nuyu ñu teg ci loxol Serigne Assane Seck xalifa général bu Thiénaba waaye wàcc fii nag nuyu imam ratib Serigne Cheikh Amadou Seck mu nuyu ñu waa Thiénaba ak chef de quartier ba ñëpp ñu ngi leen di nuyu di teg ci nuyu bi nag sëñ Mourtada sëñ Mourtada doomu Baye la waaye banque wu doon Baye Ousmane Baye Ousmane mooy kan su ma neex wax la Aïssatou waxoon bañ ne ko kan mooy Rasulullah mu ne mooy alquran soxna Ousmane sëñ Ousmane yàlla dogal na alquran la doon dunde ku mënoon gan ku mën a teeru nit ku mën a teral nit man romb ma toog naa ci ba tey maa ngi wax léegi Ousmane ne ko sëñ sëñ Ousmane maa nga mbaxanaam denc ko di ko barkeeloo sëñ Ousmane ku xamoon alquran la waaye ku ko jëfandikoo woon la ku bëggoon bokk la waaye ku ko doon dox la ku amoon xam-xam la waaye ku ko doon jëfe la ku bëggoon diine la waaye ba ñëpp xam ni kii nitu diine la mu bëgg amari ndaak banaa fi di ko doxe ñëpp xam ne nitu yàlla la te wanewu ko waaye ku ko xool-xool te ko xam ne kii nittu yàlla la bu dee ci yëf nga xam ko bu waxee nga xam ko bu doxee nga xam ko kon Ousmane sëñ Ousmane neex naa présenté fa yonent bi tegoon tànkam maam amari ndaak te fa tànkam sëñ Ousmane fa la tegoon tànkam musu koo teggi musu koo teggi di jàng ak jàngale ak yar ak yeete ci loolu la nekkoon diggante Thiénaba Seck ak Mbour ba Mbour gépp am fa Thiénaba Seck goo xam ne sëñ Ousmane moo ko jiite Mbour gépp xam ko ci xam-xam gépp xam ko ci diine Mbour gépp xam ko ci ngor kon moom la ñuy wooteel bés bés bu ko koy woote doomam sëñ Mourtada doom ji ko manqué wut ci benn boor ndax daf daa woote mbooloo mi ñu def la ci war ba Mourtada wootee mën na ñaar yoon la papam woote woon kon li ñu xam mooy sëñ Mourtala lañ koy ñaanal yal na gudd fan te wér li mu woote te bàyyam doon ko woote yal na ko woote ay téeméeri at ci kanam lépp lim ko bëgg te bokk bëggee ko noonu yàlla nañu ko bëggee noonu yàlla defee ko noonu barke Seydina Rasul ñu nuyu nag oustaz Talla daane ci suñu kàddu oustaz Talla jërëjëf matali nga ci ndeyjoor matali nga ci càmmoñ mooy lan ci biir Thiénaba ñëpp xam nañ kan mooy oustaz Talla Diop waaye Mbour xam nañ kan mooy oustaz Talla Diop sa ndeyjoor Thiénaba sa càmmoñ sa Ousmane mu sol la xam-xamam jox la jikkoom jox la yaram jox la tegginam jox la manam xam maslaam nga téye ko ba mu dëgër indi ko fii ci képp ku dugg fii di nga xam ne fii kër Cheikh Thiénaba la waaye kër Sëñ Ousmane Seck la yaay ma nga ne toog yaay Sëñ Ousmane nga ne toog taalaa ngi ni toog yaay yaay turandoo yaay Ousmane ma nga ne toog ajabbo kon li nga xam ne moom la ñuy wax mooy Sëñ Ousmane Seck yàlla na yàlla yokk leeram doomam ji di Mourtala ak bokkam yi ko topp ak rakkam yi ko dar yàlla bu am yàlla bu ñu am gàcce lii ñu woote yàlla réussir wane réew mi ñëpp nag kenn ku nekk waajal di góor di jigéen di murit di xaar di dëkk laay parce que sëñ Ousmane ñëpp la woon fu nekk ci réew mi waajal foo jëm mbuur koy seet Mourtala lu ngeen def màggal yontu yàlla Mohamed ci kër kan kër sëñ Ousmane Seck bu kenn manqué nit ñëpp paas dem ku amul paas jar nga dox mbaa nga leb paas dem.

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا شيخ التيجاني قطب المكتوم برسخ المختوم شيخ طريقة وأستاذ العقيقة في المناقب الظاهرة والكرامات الباهرة القطب الأكبر والعالم الأشهر الشريف العفيف والقدر المنيف أبي العباس سيدي أحمد بن محمد المختار وعن جميع خلفائه وتلاميذه ومن والهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان والأخيدة موكي جلدي yi mbokki pas-pas yi kenn ku ne ñu ngi ci batu nuyo bi nga xam bi mom la wa aljana di nte muy alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sunu jotaay bi amna ci mbekté mu reuy mbekté mu kowe jotaay bi nak nuyo bi niko imam imaam taala ci wa kër sayyidina limam ñu ngi leen di nuyo di nuyo chef de quartier bi seigne Assane Ka di nuyu ñëpp képp koo xam ne ki yaa ngi déglu suñu waxtaan rawatina nag di nuyu nag waa Mbuur ci gàmmoog sëñ Ousmane bii nga xam ne mooy bëgg a ñëw mooy ñëw gàmm gi ñu ngi nuyu waa Mbuur yëpp di nuyu waa Canaba yëpp waa Cheikhu Canaba ñoom ñëpp di leen nuyu sëñ Assane Seck Canaba ñu ngi koy nuyu di nuyu mboolem muqaddamam ya di nuyu mboolem taalibeem ya di nuyu chef de quartier ñoom ñëpp waa Canaba yëpp ñu ngi leen di nuyu fa tabarakallahu di nuyu nag al imaamul akbar imaam taala mii nekk suñu côté nday joor nga xam ne e, tarbiya bi mu am ak li mu doxale diini fii ci gox bi kon bu ñu waxee ne e, gàmm sëñ Ousmane mi ngi ñëw mi ko yar nee na nit ki bul laaj sax bul laaj nu mel laajal ka ko yar na mel kon imaam taala ni mu mel kon ñun day mel ni gis nañ sëñ euh, euh, Cheikh Ousmane suñ sëriñ Ousmane ci sekk mel ni gis nañ ko ndax moom la ñuy xoolee Imam Talla man mii ki ma yar muy alhaaji muy muy Alioune Khoudia Thiane sama najaay bu ma demee Jolof ñi waa Jolof yëpp nañ may xoolee bëtu Alioune Khoudia Thiane may itam maa ngi xoolee Imam Talla bëtu sëñ Ousmane Seck fa tabarakallahu di gërëm Imam Talla suñu ànd yàgg na waaye ànd bu rafet ndax ànd boo xam ne bi makaarimul axlaax rek la moo ko lal jikko ju rafet jikko ju rafet rek moo ko lal bi ci ànd boobu ci la xamanteeg alhaaji biran wayel mii di boroom xam-xam bu mag di ki nga xam ne kii wax dëgg yàlla waxtaanam ci rajo ñëpp dañ koo doyloo ci laa xamee itam eh, al imam imaamul akbar di alhaaji malik ndaw alhaaji malik ndaw suñu wóolëre la boo xam ne daanaka li imam mbax moom daal mooy ñun ñooy moom fa tabaarakallaahu ci mbaaxam ak am xamam bap am xam-xam ba pare nag mel ni xamul dara nag fa tabaarakallaahu fekk dafa fees dell dëkk ba Kaaran ca Kaaran ca euh, Gambi fa tabaarakallaahu waaye di suñ wëlëra di suñ xarit romb jumaa yu bëri dikk di ànd ak ñun maag imam Talla jërëjëf imam Ndaw léegi euh, nuyu nag sama genn wàllu Mor Fall ndeyjooram moom itam Mor Fall yàlla boole ñu ca Grand Yoff mel naa mën naa wax ne en 66 daanaka la ci toppal lañ xamante ba léegi muy sama wëlëre boo xam bi bii tabaarakallaahu mën naa yaakaar ne imaam taala mi am na lu ci seede ay bés yu bëri damay jóge ci jàkka ji ñu wax si fa dama jàdd këram di waxtaan ak moom loolu kóllëre goo xam ne gi yàlla ko doxal suñu diggante maa ngi moom kóllëre googu fa tabaarakallaahu suñu xamante yàgg kontaan lay am ci am ci man kon loolu ñu ngi ciy bu baax bu loolu passé ñu ngi gërëm e, sëñ wax arab ba waxoon ne rek inna tibaa tusriqu tibaa jukko yi dañuy sàccante kon imaam taala ba jukkoom rafetee ma dikk ànd ak moom mu branché ci jukkoom ju rafet alaaji biraan waaye dikk biraan waaye dikk branché ñu branché ñu mu ànd ak ñun eh, alaaji imam ndaw ñëw mor sa dikka salika sëñ góor yi noonu laa xamante moom ci imam kon imam li eh, ma waxee ne jukko yi dañuy sàccante rek kon boo ànd ak nit ay yoon yoon seen ànd yàgg rek seen jukko duggante nañ kon alaaji kon suñu góor a jóob ñu ngi koy xoolee imam rek ba tey comme ni ñuy xoolee suñu mbokk yi imam bu loolu passé nag pour eh, ma bañ a guddal maa ngi sant eh, waa kër imam di commencé ca ki nga xam ne mooy Adja Bolo mu ngi xam ne mooy kilifa kër bi wàcc si soxna Awa waaye ci xale yi maa ngi tàmbalee ci bas mi nga xam ne moom mooy seen mag teg ci nag Moustapha wàcc si Cheikh Tidiane wàcc si Mayib waaw ma wàcc ci waaw bés waaw tabaarkalla kon loolu maa ngi ci kontaan bu baax di gërëm eh, soxna yi fi teew yi suñu doomi yi jigéen ñi fi tew yépp ñu ngi leen di gërëm fa tabarakallahu eh, alhamdullilah ñu ngi leen di xolé rek seen bay seen juko fa tabarakallah te juko nak moy nit la yalla tagge yoon bi sallallahu alayhi wasallam bu lolu passé bis bi le 9 lay doon décembre fa tabarakallahu ni ko alaaji bi waaye wootee rek man te ma ngi woote nun képp ko xamni ke que mën nga ca tew rek na nga ca tew ku am jot na nga fa tew ñu ngi lay fay wo inshallah man yàgg naa deg gamu gi musuma ca dem way bëgg naa maande caag imaam incha allah bëgg naa caa dem inshallah allah waaw ndax ma kan ma xam kan moy seigne Ousmane seigne suñ seigne suñu suñu bay di sëriñ Ousmane Sek bu Canaba fa tabarakallah yalla yalla yok ko leer zadahu la nuran yalla yalla yok ko leer yalla def nit mu tëb ñu tëbb ci leeram waaw fa tabarakallah di gërëm ñepp di kontaan alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبنا الله واجه لك لا يوخ بام فكي جتاب ملني بيت خلال جوك كادو مدادني لما رأيت القوم شدوا رهالهم على بحر كتامي أتيت بالجرتي fekk na ñëpp a ngi toog kenn ku nekk jël parole ñu ne ko nag mbooloo mi mbooloo mi na wax ji wax ji sëñ bi wax jaa ngi nii amutoon dara moom lam teew mooy mbuusam lemam mu ne ko ah, man de awma lenn lu dul suma mbuusam lem mi am ko awma ci kaddu wante ñun bu xam cene ba euh, di tagg cene ba dañoo sob rek wante li ñuy am doy nañu muy imam taala kon ñu ngi nuyu imam taala suñ nuyu imam taala nuyu nañ njabootam waaye nuyu nañ ay wëllëreem comme ni ko ñëpp waxee rek 2005 euh, 6 lañ fi ñëwoon gis seen jikko tànn ko lool bég ci lool ci ànd bi lool Euh, di ñaanal suñ mbokk mi ñu boole woon ak moom muy Oustaz Lo yenn yàlla yërëm ko te jéggal ko mu boole ñoog ñoom damay wax ne fu ma dem fu nekk dinaa leen fa tiitaroo muy imam Talla mi imam Omar Ba ba ci imam góor Diop àgg ci suñ mag mii dama toog barki démb rek mu daal di leen ma ne ma ne sëñ Birane de dafa yaakaar ne man moroomam laa euh, ndax ni muy wax man waaye dañuy wax ne gone ba loxoom setee mën a bokk ak mag dafa baax lool su ma koowee rek mu ne ma suma sëriñ mbaa mu wax ma li gën a neex taalibe Cheikh euh, loolu lay sawarloo gune Mouhamadul Gaddafi Jamal Abdul Nasir daf kaan wax ne ko suñ dajewaan ci kongre yi mu ne ko mu ne daal di wax ne xale sii daf may fàttali sama démb mu ne haasi shaab yu zakkiru ni euh, sababati kii daf may daf may fàttali sama jamono ngir njàmbarteem ngir cawarteem ngir saqaafaam man damay wax ne kër imam taala euh, même lekk gi ma fi lekk ataay ma fi naan sax dama ci dañ ma ciy bindal tiyaabo ndax damay bëgg suma fi ñëwee euh, du fàtte mukk du fàtte benn bis boo xam ne Euh, di ko wax toog fii rek man ak mbokk mi ba suñ jotaay jeex ñuy dem daje moom fii mu daal di ñëw puus na wëññeeku leen wëññeeku leen ñu ne kenn ñëw di imaam kenn ñëw ñu ngi la mën ne wëññeeku rek waaye boo xoolee lim def man nga ci jàngee lu bari nanguwul ñu yegsi ci biir kër gi nanguwul ñu mu lam ñuy jox mu joxe ñu ci. xoolam moomu njàngale xëy na sax boobu man ñaari téeméer wala téeméer ma ne sama xëy na moom itam loolu wala boog lu ko ëpp ci nekk moom seetul loolu dafa seet li ci poosam rek mu génne ko jox ñu kon ñun bu ñëw fii am na lu ñu fi jàngee kon de kë kër Thiénaba suñ Thiénaba ñun balañ ci jàngee ci ñoom di jéem a séentu kan mooy seen Thiénaba ak kan mooy njabootam ñun ci imam taal la ñuy xool ci la ñu jàngee di jàngal nag ki doom ji gën a tuuti ki gën a tuuti moo xam jigéen la góor ñu gi jàng ci moom bu ñu fi duggee rek parce que ñun ta bi ñu am 6 ans ba tey ji lañ doon taalibe génn guñ ci ëpp ëttub taal man ba tey ñi bégguma kër baay ñi bégguma kër yaay ñi bégguma kër kër nijaay man damaa ne ci bàyyi ko ci daara gis ñu sampal ma daara ma toog ci waaye di leen xoolee nag comme ñun man xoolee leen comme su ma sëriñ ba ma bàyyi yal na ko yàlla yërëm moom laa leen di xoolee imaam mi daf maa doy ci zahir ak baatin maa ngi guddal ngeen baal maq maa ngi guddal su ci bëggee wax di sori lool sëñ Birane kontaan nañu baax a baax ci yéen ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyu sëñ Birane Euh, ñu ngi nuyu sëñ moor ñu ngi nuyu sëñ Góora euh, di nuyu suñu doom yii nga xam ne tey ñun doom lañu leen def mais morom lañ leen def muy Moustapha mi ak sëñ Cheikh mi ak Mayib di nuyu nag soxna yi ñu ngi leen di wax ne ñu ngi leen di sagoo ñu ngi leen di sago suma soxna laa bëggoon indi wante démb dafa dem hôpital tey dafa dem hôpital fekk joxoonteem rendez-vous am solo pour jéem a def waxtaan fii waaye daanaka hmm, woote ci gàmm gi kon nag macha allah ñu ngi war leen ci gàmm yal nañu ko fekkee jàmm yal nañu ko fekkee jàmm ni ko sëñ bi daan waxee yal nañ am joti mën a teew ku teew lañ fay wut yal nañ ko fekk yal nañ ko am lañ fay ñaan yëpp yal nañ ko muy le neuf kon le neuf ki ñu koy ñaanal ak kañ fee woote ay manaaxewoon ci alquran yal na dëppoo suñu bëgg-bëgg yëpp yal nañu ko fekkee ak tal wasalaamaaleykum wa rahmatullah baxda ausu billahi min asheytaani rajim لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، مملنا بنتمي كريديني نغسق كري تاريخي تاينك تانا بمو مومي di sëriñ Ousmane Seck eh, di sunu sëriñ ndax bu nu jàngul li jàngal na ku nu jàngal e tey moome mu bis bi nu ñaan yàlla yóbbu nu ci ak jàmm muy le 9 décembre eh, li Alaaji Seexu Omar wax ni mësul noo teew ci jàng ya at mu jot ma am yenee teew bu dikkee am lu mu tombeel ba def ma gàllankoor nu ñaan sunu borom bi tabaaraka wa taala ren yàlla na yàlla may féex ah, ak jàmm ba nu mën a teewe ji ba gunge sunu bopp ndax bu nu géey imaam taala sunu bopp la nu gunge fa tabaarakallaahu lu nu xam ci moom ci imaam taal mi leen ko toxale ndax defe naa ñi ci toog ak moom barewul ci ñun ñii doonte mi ngi doon denc sama doomu nijaay it taxul ma miin ko waaye nag lu baree baree baree bare ci mbaaxam lu baree bare ci xam lu baree bare bareem ci eh, eh, tedd nga am noo ko toxale ci imam taala miin te lépp loo xam ne génn ne ko ci gémmiñam wax ko rusuñu ko wax ci menn pénc e eh, fa tabaarakallaahu ba tax na bis boobu moom sunu bis la ñu ñëpp ndax ñun ceen ba yàlla dafa noo boole muy e, e, xalifa bële pàppay sëñ seexu ak sëñ jibi waaw damay guddal rek na xam naa ko bu baax fekk na ma mbos ñaari yoon danoo àngu bokk yàlla def sëñ see sëñ jibi moomu nu amuk bokk sunu ñaari yaay bokk baay kon man maay ceen ba ceen baay man sëñ Ibrahima sama nijaay bii ci yëmbal tudd na ko doom jooxanik euh, sëñ ceen bari lañ koy wax ñu ci bari waa caaro ñu ci bari xam nu turu dëgg-dëggam sëñ ceen bi rek lañ ci xam waaw moom la ko tuddee sëñ Ibrahima la ko tuddee mu ngi dem itali di ñëw yor këram ak ay soxnaam fa tabaaraka kon nag Thiénaba mooy nun nun nooy Thiénaba nu ñaan yàlla rek bis bi bu dikkee rek yàlla nu yàlla may féex may nu tal talgun fu mën a teewe ji e, ci maanaam nun ñi nga xam noo fi daje nag di fi daje par ajjuma du ma jekk sax di kenn ku ci ne xam nga fi sa morom toll ci yow yàlla na ko yàlla saxal te yàggal ko lool imaam taala nag moom la ma waxoon ci moom rek sama kilifa ga Seydina Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si dafa wax ni boo amee sa nit li nga xam lépp ci bu baax nga taxaw wax ko ko lu ko dal yow kon nañ ko ñaanal yàlla rek nee na bu ñu commencé naan la yaa mel nii yaa mel nii yaa mel nii di lu wax yow itam allahumma ajhalni fawqa maa yusiruuna waxfir lii mimmaa laa yaxlamuuna ndax nit bu xamee sa lépp wax sa lépp lu la dal mooma kon nag nañ ko ñaanal yàlla rek tawféex ak tey siir ak fan wu gudd lool ak njaboot gu barkeel yàlla wàccee ci kër gi jàmm wàccee ci sunuy kër jàmm ñu ngi ñaan yàlla daal le neuf daal kenn ku nekk na ko bàyyi xel incha allahu ah di nuyu soxna yi ci kër gi nag ñëpp rek suñu aaw suñu ñaareel ñëpp ñu ngi leen di nuyu tubaarkàlla di nuyu sunu gor yi ci kër gi kër gi moom kërug daara la jarul di wax kenn ku fi ku fi ni salaamaaleykum waxuma la yenn waxuma la fanaan waaye boo fi yendoo soobu ngoon xani këru daara la bu ko defee nag li ci des bare li wax rek ak guddali wax rek ah, bu ko defee rek eh, ñu eh, bàyyee foofu sunu kàddu ah di nuyu mbooloo mi ñëpp di leen jaajëfal ah, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aouzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala sayyidina mawlana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yawmi din وردنا شيخنا شيخ عبد العباس رضي الله تعالى عنه di nuyu ñëpp eh, di ziar ñëpp di wax kàddu yi mënuñ ko bañ a yëkkati waaye ñu ko yëkkati ko ndigal eh, di wax ñu maa ngi nuyu ñi may seetaan ñëpp ci àdduna bi fii ci pencum Thiénaba Cambérène Parcelles ci ëttu eh, sëñ Ousmane Seck ci njabootam Mouhamadou Mourtada Muhaddam Imam Talla Diop Euh, di nuyu tamit ñi nga xam ñoom la àndal ci liggéey bi mu liggéey lislaam fii ci Cambérène Thiénaba di ñaan yàlla yàlla bàkkee seen mboolem jëf yi yàlla taxaw leen ci zaar ci baatin ah, lii nag li ko waral mooy waajtaayu gàmmu Seydina Ousmane euh, bu ñuy war def le 9 décembre incha allah fee ci Mbuur taawam bu tedd boobu di Mouhamadou Mourtada Assekiyu di ko woote eh, dox yàlla na ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla kàttanal ba naa li nga xamante ne way juróomi góor wi tàmbale na ko yàlla mu may ko mu yeggale ko ci barke maam Mahmadou Ndaaka Seck yu euh, euh, yàlla na yàlla barke mboolem yëfam euh, di soñ nag sama moroom moroomu xale yi li na sama kàddu mag Mahmadou Bachir laay jël laay wax yaram moo sutante moo tax mu nekk ci biir may wax ci kàddoom di soññ sama moroom ndaw yi di leen dénk nag di leen laay biire te li ma leen laay biire mooy ci Seydina Ousmane laa laay biire euh, dafa nekk jëmm joo xamante ni ay atam bëriwul ci zaahir waaye atam at yu bëri lu dund ndaxte yonent salaa salaam dafa wax ba taay ni mandar gi mu wax ci ñi ki gën ci nit bi ci njëkk man ta'allama al-Qur'aan wa ta'allamahu ak ni xayru naas man anfa'u linnaas ki gën ci nit ñi mooy ki nga xamante ni mooy ki nga xam dafa jàngal Qur'aan fa di ko jàngale ki gën ci nit mooy ki nga xam ne moo ëpp njëriñ nit ñi sunu bay li mu netti sina na Ousmane ba mi nek ndawul ne ku teel eh, lak xam-xam la way dafa teel gaday ñew bu mbuur nga xamanteni fofu jamono dekk bu tumuranke loolu la mu samp fa dara ànd ak ay xalé di len yar ci lislaam di leen yar ci diine di leen yar ci jikko yu rafet ba tay yalla defal ko li ko defal le kon nga xamni kon koku li gën ci nit ñi ben mi ngi coon tax ci jàngal xuraan ben bi nekkoon ni ko am jariñ li ma jotee fekk ci mom ci dundum fépp fu mu ko mësa fekk mu tok rek soppi nako dara wax fa lo xamni jariñ nit la ci ci àdduna ak wax loo xam ne bu ko toppee bu génne àdduna dara du dox ci diggante moom na loolu lañ xam ne xam ne ko ci woon léegi nag dox ci sama morom ndaw yi pencu seen Ousmane koo xam ne bëgg nga barke ndaxte jamono léegi dafa xew nit ñi dañuy màngaane imaam mi ko wax léegi ci jumaa ji naan fu nekk ñu fay màngaane uti alal te bu njëkk dañ naan màngaane pour uti alal pour uti xam-xam ñu xewoon léegi màngaani pour uti te bu njëkk xam-xam woon te képp koo xam bëgg nga barke bëgg nga yokk te barke mooy lépp penc seen Ousmane mais ca ca Mbuur ñu ngi la fay woo boo fa ñëwee rek fexeel ba ni jàkk taaw bi na la xool nga xool boo ko defee suñu borom daal dina la defal tawféex di yamal suñu kàddu foofu ndaxte dañoo mënewul ay wax di di soññ sama xa moroom xam yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina wa maulana muhammad wa bi ihsaanin ila yawmi ddin بعد السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جدال دوحات الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كنا نيب ديغ ناني ووتو بي خام ناني لي تاخا جوغ ووتو بي كان لا ني ووتيل اك لان مو تاخ ني ووتو كي دان ووتو لان مو تاخون مي ووتو القران الكريم مو تاخون مي ووتو سيدنا عثمان باي عثمان رضي الله تعالى عنه yàlla dafa def ci ndawam la baayam booleek magam muy sëriñ Ibrahima sekk mu teel kaa jël nampatal ko ci xam-xam yar ko ci xam-xam mu laxasaay gàddaay jaar jaarin yu bëree bëree bëree bëree ba nga xamante ni bi mu ñëwee mbuur am na benn góor gu ñuy wax Baye Geñ ca mbuur bokkoon na ci góor yi nga xamante ni Baye Ousmane li muy del del del del dell ci xam-xam waaye teewul da daan fannaañu laqaayu guddi ba nga xamante ni kaanu xalilan min al leyli maa yahjahuun wa bil asqaarihim yastaxfiruun Baay Ousmane ne xam-xamu zahir ba bëree noonu la xam-xamu baatin ba bëree waaye li xam-xam bi di bëri bëri bëri si zahir ak ci baatin noonu la yërmandeem ji bëri woon Baay Ousmane ko amoon lut la ci doomu aadama la waaye ko xamoon njëriñu doomu aadama la waaye ku bëggoon doomu aadama la waaye ku amoon yërmande ci doomu aadama la damay mës waxtaan ak benn dooma bu ñuy wax sëñ Maxtaar Seck ñuy waxtaan mu ne ma sama na taxawu néew bay ñaan yàlla sax naan ko yàlla yàlla nga jël sunu yiw mottaleek ko bu naree am tak-tak ndax baaxaayam kon Baye Ousmane li imaam yi wax léegi mooy sama papa Cheikh Omar sama papa Gora sama ñoom papa Malick Ndaw bay Ousmane jarul wëri fenn ndax sallallahu alaihi Wasallam dafa waxoon ni nit kañ lay dee ñu ne kañ la nit di ñu ne bis bu génnee aduna bayu fi dara bay Ousmane nak ñim fi bay ñi ngi ni ay doomu yakhruju min bayni subbi wa taraib doomam yaang fa ngay gis waye ay doomu batina ma ngi ni ko melni sun bay talu Diop ak sun gor gi nga nek ci imam ci nekk ba gar Gaar ibrahim ak Ngom jamana je ñi ngi daje ñi waxtaan waxtaan am solo ci bay Ousmane yermane ja waye bay Ousmane jarul ñu ci wax ndax sallallahu alayhi wasallam biñ laaje ya Aisha dañu woon kaana xuluxuhu wal Qur'an waye bay Ousmane kana xuluxuhu wal Qur'an hayatuhu wal Qur'an dundam lépp alquran la waye jëfëm lépp alquran la mulaqatam yépp alquran la waaye ñim yar ñëpp buñ la waxee Baye Ousmane alquran la doon dundee ñun la demal nga xool ana Baye Ousmane ñun la Baye Ousmane fàgg na si zahir ñun la ana Baye Ousmane nga demal nga xool njabootu boppam ñi nga xamante ni moo leen yar nàmpatal leen koo ci gis rek doo rus ndax Baye Ousmane ñim samp ñëpp ay toto lañ te euh, la góor ga waxoon ne al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu wal jahlu yahdimu bayt al ajzi wa sarafi kon nag Baye Ousmane ay potoy xam-xam rek la fi taxaw bàyyi fi ku réer waaye ginnaaw loolu nag biñ sante yàlla julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nitu yàlla nitu yàlla pour nga xam dëgg-dëgg nitu yàllam foog su mu faddu ginnaawam ndax mag ñi daan nañ wax sax boo dëkkee nit yàlla ñaan gi ñuy ëpp li ñuy ñaan mooy yàlla buñ ko gaaw a xam buñ naan yàlla buñ ko gaaw a xam mooy yàlla na gudd fan waaye Baye Ousmane damay wax ni yàlla buñ ko gaaw a xam si zahir si si baatin ak si zahir ñim fi bàyyi tàmbalee ko si sun maam Mortala Seck sëñ Mortala Seck moo ñu yoroon ca kokki ak rakam Alfahim Mamadou Seck ak Serigne Mokhtar Seck ak sëriñ Mouhamadou Bassir Seck ak sëriñ Ibrahima sekk mooy seen caat seen rakk bu góor ba sëriñ Babacar Seck moom yàlla dogal na ci toolu alxuraan la gaañoo ci daaray Koki 2005 yàlla na ko yàlla dolli yërmande waaye li ci gën a yéem mooy sëriñ Mortala Seck fa baayam tegoon tànkam la teg tànkam sëñ Mortala amul ay rakk sëñ Mortala mook ay rakkam benn jëmm la moo tax ma ne sëñ Mortala amul ay rakk. sëñ Mortalla du def dara loo xamante ni rakkam yi dañ ci fekku dañ ko fekk ci ñoom benn jëmm lañ waaye du foofu lañ ko tàmbale waaye ñu ngi ko tàmbalee ca daar ja ba leen seen bàyyi indi jox leen Mortalla Mortalla yor leen yor googu ñu ànd ci àndin bu rafet waaye la nekk koo xam ku yàlla baaxal la ci xam-xam damay wax ni fan yi maa ngi tooñ Serigne Makhtar ni ko waaye ma Mortalla yërëm na jaam yi waaye na guqi xam-xam yi gaa yi xam ni teen baa ngi fi. fa tabaarakallaahu yàlla da ko teel a baaxal ci xam-xam teel ko baaxal yàlla mottale a ah, jàngam mu mottale ko Arabie Saoudia ñëwaat tamit waaye bi mu ñëwee dundal dund liggéeyu maamam teewaat liggéeyu maamam teeku tee bu dëgër teeku tee bu dëgër ndax bëri na ñoo xam ne seen waajur bàyyil na leen fi liggéey waaye boo gessoo da nga naan cam waaye Serigne Mortala Seck doo wax cam mukk doo wax cam mukk mook ay rakkam ci sellal ci maandu ci bëgg doomu aadama ci yërmande ci lutfa waaye nag ñoom woote wuñ alxuraan moo woote ndax Baye Ousmane da daan tàmbalee weeru koor alif laa mim ba minal jinnati wan naas nga xam ne Baye Ousmane ay mbiram lu tax du fay gàmm gi mujjee gàmm ci une semaine la jàpp datu gàmm kon nekkal yàlla moo wér man kaana lillahi kaana allahu lahu kon ñoom dañoo nekkal yàlla lii ñu nekk nag yàlla lañ ko nekkal ku ci def sa bopp nga defal man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha képp ku ci def sa bopp nga defal ndax daara ja war naa gën a yegg waaye jumaa ja tamit war nañ taxaw bala déwén mu yegg naka Baye Ousmane naale woon Serigne Mor Talla danaan loo ko jox wala nga koy indil fexeel ba daara ji dund jumaa ji yegg loolu mooy yitteem nee na soxlawul dara nee na soxlawul dara bëggul dara képp ku koy jàppale mook ay rakam mooy li fi seen baay nekkoon nga jàppale leen su ko si mënta jàpp ngeen bàyyi leen ndax ñoom teen bi leen seen baay bënnal doy na leen àdduna doy na leen alaaxira te baay Ousmane lim leen fi bàyyi loon mooy alquran te alquran mooy lépp kon le 9 décembre bii ñu jëm nañ ko waajal balluwaay la leer la ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci gaarante yi nga xamante ni yàlla da kaa joxal képp ko ko wooteel bis wala nga wooteel bis alxuraan nit ku fa ñëw tudd fa yàlla wala nga lekk fa yàlla mën na faa jaarale xaraamal sa yaram safara ndax waxkat ba nee na man akalal maax fuuri xufira lahu maa taqaddama min zanbika waa alxuraan woote ñi ñëw ñëpp bëgg alxuraan te yàlla rek tax waaye ñooñu ko si yàlla setal xolam nga toog si mbooloo mi jàkkaarloog moom yàlla du la jégal say bàkkaar kon bés baa ngi noonu mooy le 9 décembre Serigne Mourtada Mourtada Seck ak ay rakam ak ay magam ñi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fi yàlla taxawu leen zahiran wa baatinan naal bi leen seen waajur bàyyil jëlee ko ci maam ya mu tàmbalee ci maam ya jaar ci Cheikh Tidiane ba egg si yonent bi ñu xam ni lépp mbir yàlla la yàlla na ko yàlla teel boppam yàlla na ko yàlla teel boppam la 9 décembre boobu ak noonu annonce baa ngi noonu képp koo xamante ni jot nga ko fii rek boo jotul lettre xamal ni la 9 décembre kat Serigne Mortala woo na la waaye ci ndigalu mu muqaddam mu imam Talla Diop mii man may doomam waaye Serigne Mortala sekk nekkaat sama Serigne ndax ma dama nekk sama ñetti ron Serigne. sama papa day sama sëriñ sëriñ Mortala nekkaat sama sëriñ cena ba nekkaat sama naan waay kon maa ngi wax seen ñoom yëpp kon fa tabarakallahu in uridu ila al aslaha mastataatum wa ma tawfiqi illa illa billahi ali wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuh bismillahi rahmani rahim wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen boolum yëpp maa ngi leen di nuyu seen tur leen sant di leen gërëm sëñ usmaan nag moom bu ma ci bëggee wax sama xol day tooy moo tax rek ma bëgg cee bañ a wax ndax sëñ Ousmane dama koo xam muy nit koo xam ni benn nit la nit ko am diine la nit ko am islaam nit ko am ngor doon nag baayam ak maamam am mari ngoone ndaak sekk di doomi Momar Talla Seck mat li mu doon sëkk néeg bi bu ma saa ñëw Dakar du fanaan fenn fudul fii bu waxee mu ne man fu may ñëw ci Dakar yaa may jox reer ma reer mu nekkan nag ku ma bëgg kon nag bisam bii li ma ci mën a wax mooy kull képp bépp julli rek bu góor ak bu jigéen ñu ngi lay woo ci bisu sëñ Ousmane Seck bi comme li Cheikh Ahmada Tidiane wax rek ndax euh, da daan def weeru koor wane day firi kaamiru alxuraan bu koor gi bëgg a jeex bu koor gi jeexee mu bàyyi ba jàpp ko dat bi mu koy jàpp pour mu yeggale ci kaamil bi kon woote alxuraan la sëñ Ousmane di woote waaye wootewul gàmmo moom lay woote matal ko sëkk nag am diine am ngor am fulla mat li mu doon képp ku gis sëñ Ousmane rek bëgg ngaa ci moom ñuy sant yàlla nag di julli ci yonent bi bi ko yàlla mayee njaboot mën a taxaw palaasam ndax maam Mortala Seck ñu ngi koy ñaanal fon wu gudd ak wér moo ke rakkam sumb bii bàyyam sumb bàyyil ko fi mu dikk taxawu ko comme lii ñu wax kër ga jàkka ja ca bàyyam defam def ko jumaa moom rek moo ko ñor loolu dëgg la daara ja bàyyam yoroon loolu rek moo ko ñor leneen ñoru ko moo ke rakkam kon ñoo koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla taxawal jàppale ko kartanal ko ba mu yegg li mu bëgg léegi rek Thiénaba Seck jigéeni Thiénaba jigéeni Dakar fii ba Thiénaba Kajoor Saalum Siin ndar ñëpp woo nañ leen ci bisub Momar Talla Seck bii muy eggaleel papaam ji nekk fa woo nañ ci góor woo nañ ci kull ku fa ñëw nag aajo ju fajo rek nga fay jëlee yokkute moom nga fay jële ndax alxuraan moom fu mu woote rek demal wujji ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah kontaan naa yal na yàlla kontaan ci nun mel ni sëñ Ousmane lañ doon waxtaane danga may laaj kan mooy sëñ Ousmane man la sëñ Ousmane tawallada min bayti ilmin wa wilayatin mi ngi jur mi ngi gane àddina ci néegu xam-xam ak wilaya te loola mooy lan mooy canaba ak kër yaaba kër yaaba mooy kër ndeyam waaye boo ko toppee muy kokki boo ko toppee muy kokki euh, ma Ahmadou Ndaak Seck moo jur maam moo tax mu jur ko moo tax ma ne sëñ Ousmane euh, ganee na àddina ci diggante néegu bi eh, wilaaya ak xam-xam waaye nag mu teel a xam boppam teel a xam fi mu bokk teela xam ki mu doon waaye bàyyi xel ay woy waaye bàyyi xel nag ñi mu lëkkaloonteel jamono moo tax suloo kam rafet nit boo tee boo xamee sa bopp xam sa boroom xam fi nga bokk xam ñi nga nekkal saw doxin dana rafet moo tax sëñ Ousmane mooy sëñ Ousmane bu kan nga mooy sëñ Ousmane nga ne aalimun mutawariun zahidun mooy nit koo xam ne ku aman xam-xam la waaye ku sàmm woon la waaye ku dëdd woon la xam-xamam boroom xam-xam yëpp seede nañ ko ak dëddoom àddina kenn ku ne xam na ko ndax boo xoolee sëñ Ousmane àddina dëgmalal na ko waaye ba ba muy génn àddina gis ngeen kër ga mu dëkki te su ko neexan am étage su ko neexan ay ay ay air nangam waaye dëdd gu mu dëdd àddina soxlawul ci àddina dara ba àddina jëlul ci moom dara moo tax boo ñëwee ci moom buñ la nee kan sëñ Ousmane nga dëkk nga ni kii dama doon ko dëdd àddinam waaye Ousmane sujaawoon jàmbaar la woon jàmbaar googu nag sëriñ daara ya ko yoroon ca ba muy ca ba muy toll ci tuut tànk ak bi muy mag ak bi muy jàng mboolem ku mu dëkkal mboolem ñu nekkal xam ngeen jàmbaaru sëñ Ousmane sëñ Ousmane saabirun nit ku muñan la te xam ngeen yàlla nee na ya ayu alladina amanu isbiro wa saabiro wa raabito wa taqula laalakum tuxixoon ñeenti ba yooyu la sëñ Ousmane taxawoon dafa muñoon ci lépp loo xam ne si masa naa ñëw ci moom ndax dañu wax muñ muñ dañ koy tënk ci ñetti fànn muñ balaa bu la dal sëñ Ousmane dawul wonkat ci lu ko dal muñ ak topp yàlla sëñ Ousmane musta musta jaawale boroom ak dara ci toppam ci ndigal ak i muñ ci loo xam ne yàlla dala ko aaya mu nekk sa kanam nga bàyyi ko kon suñu maan ñetti ñetti façon ñetti façon muñun yooyu sëñ Ousmane daf koo muñun waaye wa saabiroo ngeen mu sëñ Ousmane mënut a fay mosut kenn mosut a toppante kenn mosut ñàkkul daana am lu ko naqari waaye musul feeñ musul feeñ aw naqaram ngir muñ bi des ak boroom waaye nag war raabitoo mu takk woon nag ca la ca tànkam ca xam-xam ci diine ci ngor ci bëgg alxuraan bëgg sunna waye bëgg am wa waye bëgg nit yi ba tax seigne Ousmane ñepp ko bokk won kon na la ci top nga ragal yalla nga nga nga yalla mënu ngeen ragal yalla ragal yalla nak suñu borom neena na eh, eh, na ngeen ragal yalla wa tasawwadu fa khayr fa inna xëyri sa taqwa ñu melni kon ñun ñepp dañoo yomi tok da nga départ foo jëm yaa nga jëm sa borom ala ëllëg yàlla na nga na nga na nga na nga yóbbuloo ragal yàlla moo tax kon say sumaan dañuy wax ne ragal yàlla moo doon eh, ragal yàlla moo doon wéttali ko ci fu mu nekk muñ moo doon ngànnaayam ci lu muy jàkkaar lool muñ moo doon ngànnaayam ci lu mu jàkkaar lool ba tax Usmaan yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xara àjjana Sey Usmaan nit la koo xam ne si ci wàllu jàng jëruma ciy wax ndax kenn ku ne xam na ba mu waree mokkal alxuraan la teel a mokkal alxuraan bi sixar yi teel a jàng xam fànn xam-xam yëpp waaye nag teel a gëstu boroomam ba fees dell ak boroomam loolu ku ko xam xam nga ko ci moom kon waa Mbuur xam nañu ko suuf Mbuur xam na kan kan mooy Sëriñ Ousmane waaye boroom xam yi xam ne ci Mbuur xam nañ kenn Sëriñ Ousmane Sëriñ Ousmane nag bokk woon ak ñëpp boo demee Touba woote bi mu daan woote waa kër si imam Mbàkke dañ ciy ñëw ndax ay bokkam lañu boo demee Njaasaan ay mbokkam lañu boo demee Cambérène ay bokkam lañu diine kër diine yëpp di mbokkam boo demee Tiwaan waxi nopp kon Sëñ Ousmane nitu diine woon nitu islaam na waaye mbokkam ku baax ci réew mi nga woon kooku yaakaar na ko xam Sëñ Ousmane xam nga loolu Sëñ Ousmane de nit koo xam ne si soo ko séenee soo ko séenee muy ñëw nga bëgg ko soo soo jaxasoo ak moom dootoo bëgg a tàqali ko moom ngir jikkoom ak meloom kooku moo doon sëñ Ousmane sëñ Ousmane ko ku laabiir ko mën a yar waaye ko maandu te ne nee na sa xultum fa'dilu walaw kaana za qurba kon adaala muy maandu dafa mbokk ci li nga xam ne si day defar dundu nit tey day defar dundu ëllëg moo tax sëñ Ousmane lépp loo xam ne dafa xaw a nuroog tilim rek dara bëgg ko ci ma mas naa koy nettali benn anecdote mu ñëw sama maa nga seen fële dafa naan waxan naa leen ko bi ñu dem ci oto bi am kenn ku ma amantal ci taali bi for benn lu mel ne benn donko yooyu ñuy donko yooyu pilim yu gudd yooyu sëñ Ousmane bi mu duggee ci oto gis sëriñ bi yor ko mën naa la wax turu waa mën naa la wax turu sëriñ bi yoroon loolu euh, ni ko euh, sëñ diw lii foo ko jëlee mun fee laa ko ko waa ji nit dooloo romb rek boo ko bëggee jël ko delloo ko foofu sëñ Ousmane doon ko ñu jaa maandu waaye ko jaambure dawul toog mukk di jëw nit wala muy toog nit di wax ci ab deram am na benn taale mas naa ñëw ñu toog kookee waxtaan ba yàgg mu tudd benn kilifa xëy na lam ci bëgg tudd xëy na fa mu yaakaar ne sëñ Ibrahima fa mu yaakaar ne fa la jëm du jëm ko mu ne ko bàyyil jàmbur bi kat bàyyil jàmbur bi kat kon sëñ Ousmane kenn musul fekkee fu muy toog di wax ci dërëm nit lu noonu kenn musul fekkee sëñ Ousmane fu muy toogee ci dërëm nit di wax lu noonu Sëñ Ousmane kenn mënul fekke benn jaay nga xam ne tey ji am na lu ko naqari su amee lu ko naqari da koy muñ woon naa su ko dara dugg ci néegam waaye du teesanti du yeddan gis nga xale yu ndaw yi mu yoroon booba man maay seen mag maa leen féete woon mag tuuti maag sëñ góor ñi yàlla na ko yàlla yërëm Sëñ Ousmane daawul yedd xele toog naan ko nangam nangam dalay wax wax boo xam ne si rek am na ci benn xale boo xam dafa mas a dem ca marché ba ñu yalwaani Eh, sëñ bi li ko foo ko jële mu ni ko ah dama ko for mu ni ko delloo ko ba fa nga ko jëlee woon nga teg ko fa kon sëñ Ousmane nekkul nit ku doon giiroo ni giiroo xawee tey jii nga xam ne kenn ku nekk boo amee moyen da ngay giiroo sëñ Ousmane nekkul sëñ bu naan bu doon giiroo <laughs> wala mu nekk nit koo xam ne da ngay eh, àddina àddina joxoon na ko àddina dëgmalal na ko aman na xel mi aman na moyen bi waaye dañuy ah, sama la nekk sama borom moo ma gën a lite wal aaxiratu xayrun laka minal kon si yàllaa ko yàllaa feesan ci moom del ku yàlla fees ci moom den nag wala si dundaay moo ciri àdduna yu tuuti yi kenn du la ci mën a doo ko xool nit mun laa fees ak yàlla del àddina di am ci ab ah, yow cër yàlla ma ko wax ci saa nee waa ji gaa yi may wax wala yaxaawoon law matala imin kenn mu leen sëñ kenn mu amul koo xam ne si mën ngaa corriger wala nga yedd sëñ Ousmane lii mu wax waru ko wax ni wala lii mu def waru ko ni wala kii mu ànd warul ànd ak nit ko xam suñu maa xam nga ci moom loolu moo tax euh, buur yëbu ko woon xam nga euh, du ma dugg ci yenn domaine waaye sëriñ bu yox yox rek buur daal déglu seen ndax buur te buur bu jaxasoo yow jox la la bëgg rek da daal di am ci yow ab cër waaye buur musul am ci sérieusement ab cër. daawul ëmb sànqalas buur rek. waaw mi ngi ne daawul sànqal daawul buur xam ngeen ne mën naa joxe misaal këram gële <coughs> am na ñu ko xam ne si néew ñu woon seew lu dul euh, sëñ Ousmane sant leen ñu def wóor na ma ni su defoon benn plan air plus nangam jox ko ko taalibeem ku ñu wax Omar si doomu baay Mor si mu baax ma ne ko nii laa bëgg kër gi mel du taxaw waaye musu ko musu koo santaane. jumaa na ku am nga am nga am nga am nga ci fay ku ma sëkk waaye bàyyi ma ko noonu rek dërëm dërëm yi laa bëgg ñu defoon. waaw mi ngi ko mooy jumaa jëm jëy sa mbuur jumaa jëm jëy sa mbuur su su su wootoon benn bis mën nañ koo santaan dégg nga kii wax benn nit mas na ñëw ni ko damaa bëgg financé yëpp mu ne ko déet baax na am nga tuyaaba am nga ndax niyyatul mu'min ablagu min amalihi ginnaaw amoon nga yéenay def loolu kon si yéen àgg na waaye nag na ko dërëm dërëm yi àgg xam nga lu mu ci jublu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man banaa lillah man banaa lillahi baytan fi fi dunya banaa lahu baytan fil axira soo tabaxalee yàlla am néeg ci àdduna bi yàlla tabaxal na mu néeg ci alaxira yow na boo ci defee sab dërëm mel nañ tabax ngam néeg kee def ci dërëm kee def ci dërëm dafa bëgg néeg boobu kenn ay julli yu bëree bëri am ay kër ci alaxira su ko bàyyee nag kenn def ko rek kenn kooku moo koy jago waaye nag daa bëgg nga def ci kii def ci kii def ci kii def ci kon sëñ Ousmane xalaatam dafa xawoon romb tuuti fi nit ñi xaw ndax xam nga mën naa puukariwu sama jumaa ji dexa diwu moo ko tabaxal xam nga boron sama classe mom dañ koy da titre rek diw mu diw mu tol nangam de sama sama keur gi momako taw lol sama place sama juma ji momako taw dañ koy titre waye soxman soxlawul lol kon yalla na yalla dimbali lu bax kon na gamu gi ñing ci wo ñep comme ni aja bolo wax rek njambur ndar sin salum kabber jorop de nga de fop bawal ñi lañ fi wo nak mooy taalibe yi ak wëllëre yi ñooñu rek fi nekk di sëñ Ousmane li am ci ay wëllëre yoo xam ne wuyoowuñu sekk mën naa wax ne moo ëpp taalibe yi sant sekk ci moom ah, loolu mooy baax kon nag ñi ci woo ñëpp di ñaanal ne maam moom Mortala Seck yàlla na yàlla guddal ab fanam la Cheikh Tidiane wax doy na sëkk rab yàlla na yàlla guddal ab fanam Alaaji Taala Cissé yàlla na ko yàlla yërëm danaa wax naan bàyyi lu baax am na solo. waaye bàyyee ku baax moo ko gën soo ko bàyyee ku baax da koy téye yokk ko waaye du wàññeeku lu baax nag soo ko bàyyee bàyyee ko waaye joo xam dafa xaw a yemamaay na ginaar di def na ginaar di def euh, walandoo euh, leget ga ca wala gës ko mu jeex rek na koy def kon Maam Mor Talla yaag say rak ak sama soxna astubal la ñu ngi leen di ñaan di ñaan julliti yàlla yëpp na ñu ñaanal leen yàlla musul leen ci ndog yàlla musul leen ci yàqule yàlla yàlla defar leen am naa yaakaar nag seen papa waxan naa leen ko benn bu tëmb seen pappa yéene ji mu am ci doomi ci doomi jaam yi yéene bi am ci doomi jullit yi taxaw ko njaboot allah kulli xaalin yàlla dana leen taxaw am naa ci xel mu dara waaw kon yàlla na yàlla taxaw leen sëñ Mario jërëjëf sa ah, sa rajo bi ah, Samsu TV maa ngi ñaan nag képp a sekk moom itam mooy rakku sëñ Sumaan nekk nit ku dëdd àddina koo xam ne si moom itam adduna bi soxlawu ci dara mm. sëñ ñaax ku baax la ku jullit la moog sëñ ñoo bokk ndey ak baay mm. waaye maa ngi fàttaliku keroog ba sëñ Ousmane ne la ba am ñetti woon mm. mboolooy daje di yees la mu ne déedéet eh, doo ñëpp kuy jokk jokkul ci doomu sëñ Ousmane kon xëccewul ak taal waaw sama kanam oh. kuy jokk jokkul ci doomu sëñ hmm, ah, nii la ko waxee nii la ko waxee oh, ah, kon nag loolu mooy kàddu yi ñu ngi nuyu bokk yëpp. waaw loolu jàllit alhamdulilah rabbi alamin ginnaaw bu ñu yeesalee sunum nuyoo ci sëriñ Canaba yeesal sunum ci sëriñ Laayeen mooy xalifa général di Laayeen eh, yeesal sunum nuyoo ci sunu xarit sunu wëlëre tabaarakalla eh, Seyna Issa Laay taab ab Ablaye Thiaw ak bokk Cambérène yëpp ah, ñu ngi yeesalaat sunu nuyoo ci bokk Canaba mel ni sëñ ñaana mooy borom dëkk ba moom ñu ngi ko ñaanal yàlla na yàlla sàmm ko sëñ Cheikh Amadou di borom diine ji ñoo ñëpp nag di njabootu di yoomi sëñ Ibrahima Seck kii yoral dëkk bi kii yoral réew mi kii yoral état bi mbirum dëkk ba kii yoral diine ji mbirum jumaa ja tabaarakàlla ñu ngi leen nuyu di leen gërëm baax di leen sant di leen ñaanal sëñ Jibi Seck yàlla na yàlla doolu ko ndimbal ah, bëgguma dugg ci lim ndax boo duggee ci lim rek da ngay desal waaye kon daal tabaarakàlla bokk yàlla na yàlla dimbali leen kenn ku nekk yan bala yàlla yéen yàlla na la ko yàlla téyel nit moom su la yàlla yéene su nit ñi ne yow su nit ñi ne yow yaa nu yenul lii yàlla téyel la ko dóor diis kon nag loolu moo wàcc ci kilifa yooyu ñu wax tabaarakallah kon ñu waxaat alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin commencé nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim yàlla daf na yeggale nañu ak alhamdulilahi rabil alamin yal na yàlla dafa ñu ñu fekkee le 9 décembre 2023 te tal ko euh, ñëpp ñëw si jàmm delluwaat ci jàmm euh, jotaay yëpp daan na neex waaye yaakaar naa jotaay bi gën na alaa daw euh, li tax ñu ñëwaat ci baytaala ndax ni ñuy tàmm di doxalee plateau yu mel ni mooy bu ñu ñëwee ci kii ren at ma ca topp dañuy demaat xoolaat yeneen mu xàddam ndax yaakaar naa ne mu xàddamu Serigne Ousmane yi yaatu nañu bëri nañu waaye bu ñu xoolee daaw bi ñu defee émission bi li ñu jotaat ci ay téléphone ñoo xamante ne bii ne waxtaanu Baye taala doon waxtaan daaw bu ñu ko mënee amaat parce que comme que site bi yàlla dafa def situ diine la euh, ñoom seen i seen i bëgg-bëgg rek loolu la ñuy doxal looloo tax dañuy xool commentaire yi wala appel téléphonique yi ñu jot li ñuy bëgg rek dañ leen koy defal donc ñun li ñu def pour yéen la kon jotaay bi ngeen doon sàkku yaakaar naa ne amaat ngeen ko waaye li ngeen amoon daaw amaat ngeen lu gën a kawe seen jot ndax daw yakarna ni Baye taala rek mom mo defone waxtan xale ubbi woon si kër waaye ren yakarna ni bu ngeen xoolee niñ fekke fekkee jotaay bi moy ay wëllëreem ay mbokki euh, diineem ay mbokki koñam ay mbokk yo xamante ay mbokki daaraam ñoo euh yendu ci fi euh, mu waxon tay ñu ñew dab fi plateau bi yakarna ni yeen ñi ñu man na am yeen ñu ëpp xel bu ngeen defé jangat ci ñi nga xamante ni bi kaddu nañu kàddu avant euh, ñuy jox euh, ñu dugg ci ci waxtaan yu dëgg-dëgg rek liñ ci mëna jàngé bari na ndax jamaatu rahma mbolo yërmande la euh, dam na ci ba sax bu ñuy ñaan sax da ngay gis ñu ni nañ joxé doog ku ci nekk wax ndax lamiñu wa yàlla nangu kenn xamul looloo tax bay taala jox na ñi fi nekk ñepp ku ci nekk sanni kaddu waye kaddu yu ñuy sanni bëgg nañu képp koy déglu nga ko bu baax baax euh déglu leen waxtaan bu baaxa baaxa baax waxtaan yu am solo lañ buñ dégloo suñu papa yi nga xamante ne bi ñoom la Baye Talla jox kaddu ñu rotal seen kaddu wax nañ ay waxtaan yoo xamante ne bi liñ ciy jàngee rek mooy seen taxawaay ci biir euh, Cap-Vert koñ bi ñu nekk waaye rawatina si jumaa ji tey itam wax dëgg yàlla ulama yi ñoom ñoo fi nekkal yonente bi ñoom ñoo fi nekkal yàlla kon ñoom ñoo fi nekkal diine ji yàlla yàlla gën a guddal seen fan euh, bi Baye Talla ne nañu jox Mouhamadou Moustapha kaddu bi mu waxee ba daaneel dama reetaan dama ni ah bay taala daal bu ñu ñëwatee ra Baye wa rek mu jox mustafa mu mu mu sànni kaddu ndax kaddu yi eh, ni ma koy naté rek moy man ni ma koy yëgee sama xol te mu woor ma ne keneen ku koy sétan non yëg-yëg boobu nga ci am moy kaddu yu dëggu kaddu yu and ak xam-xam kaddu yu am and ak yar yu and ak teggin way élégance bi nekkaat ci biir eh, loolu li ma siy jàngee rek moy yar na ay domam tarbiye na len waye nampatal nañ len ci kër gi waye bi Cheikh Tidiane waxé ba daniel dama lu munu mo yekri sama kaddu te mu wóor ma ni bobul sama xol lu muy sedd sedd xolu bàyyi taala mom mo gëna sedd waye ñim fegol itam ño gëna sedd ndax sëriñ ma dikkee da daan wax ni nga war neex na lool waye nga war bi dakk moy war ba wacc sa doom war lim bëgg wax fofu rek moy jang ba am xam-xam xam-xam fo ci tollu rek da ngay bëgg say doom raw la waye ku déggu xalé yi doon wax xam xam-xam lañu waxé waye xam yar lañu waxé teggin lañu waxé tay itam rek moy tarbiyé kër gi ndax keur Serigne ba dañ ne lepp lo meuna am so amul war amul amuloo teggin man nga ko ñak ta lolu seetal nañ ko ci xalé yi waye benen biñu gëna biñu gëna euh, ci Baye ak euh, yor sa keur fi ci Cap Dakar ak Dakar ku xam réalité yi ku xam ni mu mel nga yor say dom jangal len bañu mokal alcorane jang xam-xam ba am ci niveau yi fa nga sa tank ju tek fa tank amul kenn ko xamanteni bi gis nga ci mom lula met non lolu jàngat la boo xam ne ku si nekk war nga ci def euh, sa kem kàttan ndax da ngay gis koo xamante ni peut-être ma ngi ma ngi ma ngi ci biir Dakar mais pour muy éduquer ay doomam nañ nañ bëggu mel ka yombul waaye bu ñu xoolee Baye Talla boo ñëwee ci këram li sama papa ji wax wala sama tonton bi wax rek da ngay yëg ni kër gi daara la te mi ngi nekk ci ci biir Dakar. mais da ngay yëg ni daara la parce que loolu si loolu la dund si loolu lañ ko nàmpatal mu nàmpatal ci njaboot gi te njaboot gi jàppale ko ci bu baax a baax a baax kon Baye Talla yàlla yàlla gën ko fi yàggal xam nañ ni sag nga ci ñi nga nekkal dañ lay bégee dañuy lay kontaanee dañu dañ lay sagoo waaye cena ba noonu lañ lay sago ndax buñ ne Baye Talla Diop euh, ku ci nekk dafay am fu sa xel dem ndax yow représentant nga euh, ci kër Seexu Cena bi fii ci Cap Vert kon yàlla yàlla gën a guddal sa fan boo gisee ñu doon mu ñu si doon tegaat lii rek gën a prêter attention nit ki koy seetaan parce que waxtaan la woo xamante ne bi képp ku ko seetaan du début jusqu'à la fin di nga si jëlee jëriñ loo xamante ne bi lu kenn mënta natt la kon yàlla yàlla defal ñëpp jàmm ñu ngi jéglu gudd na waaye bés bee ni toll kon rek di leen fàttali gàmm gi euh, le 9 décembre 2023 mu ne 44e édition bés la boo xamante ni bésu ijaaba la bës la boo xamante ne bii benn borom xam-xam nee na soxla bu waay am aajo bu waay am gàmmu sëriñ Ousmane Seck attan na ko te nitu yàlla nag yaakaar naa ne boo demee ba tollu fenn fi doo wax sa bànneexu bakkan rek waaw am na loo boo ko waxee rek am na lu la wax loo nee na gàmmug sëriñ Ousmane Seck gàmmu la goo xamante ne bii aajo bu waay am boo fa ñëwee attan na ko kon bésu faju aajo la sëriñ ma di ko wax na ko ba xëy dam nee na ko di ngay gàmm bu fekkoon ne condition yooyu la ñuy wax képp kuy gàmm nga gàmmoo noonu kon gàmmu dina fi néew Gamu go xamanteni bi da ngay commencer alif laam miim saalikal kitaab ba minal jinna wa nas yakar na ni yombul de kon na gàmm gogu lañu wote samedi le 9 décembre 2023 ñu ngi jéggelu li ci job santé nañ ko borom bi lu si nga ñu koy jéggelu wat bu baax a baax di ñaanal bu baax bay sëni Cenaba bàyyi sëni Assane Seck yàlla na fi ak mam Ahmadou ndak moy sunu sëriñ yalla nu jox muy sunu njëriñ nañ ko japp nañ ko gëm nañ ko bëgg nañ ci fi usman akhlamuna ci ñun ak ku fi dee di baax laakin donoom mooy boroom alquran sëriñ Usmaan leen fàtte abonné ci seen seen YouTube Samsu TV jant bi leeral àdduna te activé cloche de notification boobee ngeen di seen si seen écran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 bege ba arjana